sant bu baax ci taxawaayam ci mbir mu rëy nii ba mu tàmbalee ba léegi mi ngi ko ànd ak nun mu ngi leen di seereel sunu cant ak moom ci liggéey bi kon jërëjëf président taxawaay bi gis nañ ko ci wàll yépp ñu ngi koy yàlla muy faye yàlla na ko fay ci barkeb Sëriñ Tuubaa gannaaw loolu ñu ngi sant bokk yi ñi nga xam ne dañuy boole di tudd di tudd sëriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax ñëpp ñoom ñëpp ñoom bokk nañ ko ànd ci biir ak ci biti suñ lépp nag jiital ci liggéey bi kon noo ngi leen di sant bu baax di sant nag mboolem taalib yi kenn desut ki yaakaar ne moo ci gën a fegg ak kañ foog ne moo ci gën a kawe ci mboolem bokki taalib yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax gis nañ yéene ji nga xam ne am ngeen ko ak pastéef bu wër bi nga xam ne am ngeen ak itte ju rëy ji nga xam ne am ngeen ànd gi ngeen ko ànd ak nun tàmbali liggéey bi ba mu agsi fii tey loolu amel nañ leen ci cant gu rëy di ko seereel borom liggéey bi rek jëmmi fii ñu toll nii tey tolluwaay la boo xam ne dafa aajowoo ñu gën cee yeesal sunu jaayanteeg sëriñ bi di ca fedd li sunuy laxasaay fas yéene gën a taxawu liggéey bii ku ne xam na liggéey bi ni mu liggéey bu rëy la caaxaan eggaliwu ko fii mu egg. rawatina ci li nga xam ne moom lañ jëm. rawatina nag ci li nga xam ne moom lañ jëm. ndax li ko eggale fii. ab tàmbali rek la. da koy da saytu. mu bañ a dellu gannaaw. mu bañ dellu gannaaw. loo jooju itte mooy li ci gën a am solo. kon nanu ko ittee woon rek tàmbee tàmbleeku ni àndee ni kon yaa yoon waa nan ci gën a def yitte bu baax a baax a baax ndax li ci war lépp ndax dara bañ cee sooxe dara bañ cee taxaw ni ko borom bëggee woon rek jërë ngeen jëf gannaaw bi ñu ngi gën santaat président. ci taxawaayam. ci ni ñu ko waxee woon rek. biñ tàmbalee liggéey bi. ba ni mu egsee fii. noo moom noo ko ànd. nu mu gën a diisee. ak nu mu gën a sellee. ak nu mu gën rafete noonu rek lu ñu ko àndee moom. noonu la ko defee ak nun kon ñu ngi koy dollee sant di ko gërëm bu baax di sant nag mboolem bokki taalib yi yëpp alhamdulilah rabbil alamin kon léegi nag nee ñu jox kàddu gi sëñ Bass mu eggale mu eggaleel ko waaw. jërëjëf kon dañuy jox kàddu gi Cheikh Mamadou Bassir waaye dinaa leeral ne soññe bii sëriñ bi wax. si Habibu mu sëñ Fallou de tey jii la tàmbaliwaat yeesalaat ak jaayante Touba ci kanam téeméeri million la indaale waa tuubaa ci kanam yeesalaat ko seen taxawaay ngir wane ne lañ defoon fàtte nañ ko ñoo ngi tàmbali tàmbali bu yees ñun ñëpp kon dégg nañ junj bi kon ñu jox kàddu gi sëñ Mamadou alhamdulilah